yow ñu nekk ki nga xam moo nekk ci réalisation bi di Pape Samba Thiam mën nga maa may am lamb rek goo xam ni père moo koy euh, moom moo koy commenté lamb joo xam ni. père koy commenté bul teg sama bés ah. Hmm? kan ak kan. Modou Lo Eumeu Sène père neex. Modou Lo Modou Lo Eumeu Sène. non daa gaaw. Modou Lo Eumeu Sène ah? boobu daa daa gaaw boobu non non. Modou Lo Eumeu Sène déedéet gaawul de. pressé wut maa ngi pressé. maa ngi <laughs> a tegal est-ce que Balla Gaye Issa Pouye am na ko. Balla Gaye Issa Pouye. Oh, xoolal lamb yu yàqu. Balla Gaye Issa Pouye seede yàqu na bu yàqu. da ngaa xamul bëri. seede moom amatu fi. Ah? xamoo lamb. seede moom xamoo lamb. yow eh, ko ma ñëw. tëj ko eh, li nga bëgg lañ lay tegal. Balla Gaye Issa Pouye même ko ma xool. Baye eh Kaay Baye Kaay eh kii. dubalee say baay per ban lamb nga soxla. lamb na Balla Gaye bëri daal. Balla Gaye bu teg baax na. ak kan ak kan. Eh, taxawal per Eh, yéen yow fii ku ne la da ngaa ñaaw doo am kersa nga toog benn place. ci benn yow xari ràmm yooyu di ne ci dara li. bàyyi bàyyi bàyyi. bàyyi ok ok ok ok. yow nga bëgg. mu ci bopp. waaw waaw Balla Gaye moom nee na moom nee na làmb ji ñu mën teg. moom na Balla Gaye bëre. <laughs> booy commentaire ci làmbam. waaw sa xol ne war a ko. ok bi. ok lan. bàyyi leen père bàyyi leen père <laughs> wax mu jug sama place ba eh, père mooy presté kenn du wax nag ci kaw prestation kenn ñu respecté ñiy déglu te ngeen ma doomu dugalees gi waaw borom tàkku saani baax borom takkusaan yu bëri. ma ñëw ma wax ci moom. ayca képp ku jël owaasam da ko bàyyi xel. moo bokk ak Sa Thiès moo bokk ak Sa Thiès. mooy doomi Géejawaay gi. mooy doomi Géejawaay gi nekk na fi roi des arènes. waaw di ci di ci nuyuwaale nag waa cité enseignant bu baax. ñëwal. léegi. jacket jack jack jack jack jack jack jack per per gin gin gin jacket gin dal yaa ngay dem ne per yaa ngay dem dal yaa ngay dem dal yaa ngay dem na ñëw dal yaa ngay dem ay ay léegi léegi per mais mais nga baal ma abba yow ki nga foog ni jabetul ah lan loolu per per kay taxaw nii père ka taxaw ni ka nga may ma nuyu parce que ba taxaw fii doo ba taxaw fii wuy ma wuy ma wuy ma kii jabetul dafa siti Pawlish koo xeex mu dund victoire koo xeex mu dund koo xeex mu dund koo xeexam duma la. mais keroog maa gagné. ana yëpp jigéen ndey sa. mooy suñu yaay xeexal ak jigéen te xool bi jigéen nga ko mën. ayca léegi gagné gagné la ayca gagné gagné la. maa gagné nga mel ne ku sekkeen ku jigéen ki la mën. da ngeen di dégg waay da ngeen di dégg waay ay kilifa ak ñuy ay kilifa ak ñuy xool. pour sot ma. ay kilifa ñuy xool hmm. parce que yow sànq ñëw dégg nga kii. say jaaro nga mel ne pitax say jaaro nga mel ne pitax ay kilifa ñuy xool bàyyi leen Pawlish bu waxee ba pare après ñu bàyyi euh, père peex euh, mu def li nga xam moom mooy prestation bàyyi bu kenn waxaat Pawlish boo waxee ba pare nga toog ñu bàyyi suñu père peex moom mu dem parce que tamit il faut ñu xam ni ay nit ñoo ñu si raan et que et que doole fi ñëw bëgg maa sot hmm. ma néewal doole hmm. sama loxo baa ngi tokki te mënu ma ko wax ci télé bi. <laughs> boo paree rek nga may ñu yeggali. micro bi da ngeen ko sol ay ay kii ay ay pile ba mu diis. waaw lii du yoon ñi koy seetaan xool leen xool leen ñoom ñëpp ngeen di xool cent par cent. Mm. xoolal mi ngi takk ku ne takk écouteur jox ma. bu ma joxoon yow kii yow nee xoo joxoon parce que da ngaa feeñ ba pare. waaw bu ma joxoon daal. ay jëppee ngaa taxaw. nga jeex nii ak Pape Samba Thiam waaw du ma nuyu waa Kaolack waaw di nuyu waa Kaolack yëpp fi ngay taxaw yow fi ngay taxaw yu nga presté rawatina gaawaan nga ma dëkk aw ma lu gaawaan di nuyu waa gaawaan gi yëpp di gërëm akim ak ki nga xam mooy Toumani mm. Toumani naa ko def meeru Kaolack nag ah? Toumani maa lay def meeru Kaolack Toumani Ndiaye sama waa ji day jàppale bu nay Kaolack yëpp naa ah, ko def meeru Kaolack di nuyu Mamadou Lamine Meng ca Touba kenn du moom aji indi lamb ji si sa caam jëlal ñëwal ñëwal si lamb ji ma xool aji indi lamb ji ñëwal aja wàcc ma daan naa la wóolu ku daan kaw ngay féetee. waaw waaw. ndeysaan ñëwal ci làmb ji yow. ndeysaan mu ngi noonu. am na daan na ko Balla Gaye daan na Tafatine. doomu dama laa ci daan na ko père père. borom Guédiawaye daan na ko. père borom Cité Essanien daan na ko. père mais may ndox waay. père na ko. wuyul wuyul wuyul wuyul. wuyul nga naan may ndox. wuyul nga naan père. père kaay bàyyi jugal. on dirait jugal père toogal père loo ñu mën a wax ci làmb ji. li la mën a wax ci làmb ji li ma mën a commentaire waaw nan la Balla Gaye duggee naka la Tapha Tine duggee père naka nga gisee làmb ji fi ñu nii. boo xoolee Balla Gaye. Mhm. képp ku jël avance am. Mhm. sañ bokk duñ nelaw yoo doon nelaw. Mhm. soose pire la. te soose lépp lu mu la wax da koy def. soose bu la waxoon tey du fanaan du fanaan. la gaynde la. nekk ci làmb nag ma bëgg ko lool mu doon sama doom. Hmm. baax lool. Hmm. di wax di nga di nga wax na nu dund nag ni mu dugg see ci làmb ji tuus mu ñu ko tuusal bàkk ba mu bàkk ba xaa ku dul jinne doo ko xam. Hmm. ku dul jinne doo ko xam. teg ci nekk bàyyi dégg nga teg ci nañ ko tigal. père bàkkam jinne euh, nañ ko bàkkal. waaw waaw njaajaan jinne. waaw njaajaan jinne dina xam sa kër te xamoo këram njaajaan ñëwal. Bram Dalkin, Bram Dalkin, Dam Taxit, Bram Dalkin, Dam. ñeneen ñu ne ñeneen ñu ne ñeneen ñu ne. dina xam sa kër te xamoo këram ñeneen ñu ne. géej sa kër. Bram Dalkin, Dam Bram Dalkin, Dam Bram Dalkin, Dam. Bram Dalkin, Dam Dam Dam Bram Dalkin, Dam. ndeysaan dama loolu lay lamb Aba ndeysaan. lamb loolu la baaxoo mbër. moom mooy dof ña koy seetaan noobul ñay dagg ci kay ay boos ke leen tëggal combat ba nag mooy VIP ba kon nag Aba doxal yàlla sa jàmm yàgg waaw léegi doxal yaa ko waxoon de yaa ko waxoon yàgg na bi muy bëree ak kii doon na ko doon na ko euh, ndugum kii nagar nagar wale ah, ah, Aziz Alain Ndiaye li ngeen bëri nagar wale taxawal bi mu dikkee mm-hmm. bëri nagar wale mm-hmm. laa ne xale bi ba moytuwul dina doon champion mm-hmm. boobu nagar wale ay potowaas daan indi ndeysaan waaw mais père mais père Bécaye di li indi xale yi ci làmb ji ñoom Modou Lo ñoom Lac de Guiers xam nga ñoo bokk euh, ñoo bokk même génération la même génération la xam nga xale dañoo gimmee ci peggu Falaye Bal ñii gimmee ci Mame Gorgui Ndiaye ñii gimmee ñii gimmee ci lambiti couleur mhm. lambiti couleur moo ñëw boo ñëw ba Pikine rond point Pikine ba amoon na fu ñu mhm. wooyu lambiti couleur mhm. dañ faan dajeeg mutlu man man leen xale bi aba naanaan mun naa daan ku ne ndeysaan daa bëgg làmb Pawlish dafa bëgg làmb xale la dafa mun dural lenn rek ko yàq lenn rek ko yàq ndeysaan Pawlish looy jooy ndeysaan xol bee rafet bu wax la maa ñaaw lenn laa lay ñaan bu wax la maa ñaaw ngir yàlla